suñuy jaar-jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xam ne su ko xaar bu Ndiamé TV bësal na station bi nga mën a ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. yaay rasoolo yaay rijaal yaaram yàlla laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah alwahid alsamad الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ ولدا subhanallahi wa ta'ala amal shukur wa nusalli wa nusallim ala afdalil xalqi rahmatan lil alamin sayyidil awwalin wal akhirin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنت رحيم التمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وتخفي الأعداء كل داء أنت رحيم التمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان Ibn Bala wa Jumlatul Wabai wa Tuhtilat Ahdai Kuladai Anta Rahman Al-Mu'minul Muhaiminul Manan Ibn Bala wa Jumlatul Wabai wa Tuhtilat Ahdai Kuladai Wakini waktu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nilai-nilai di jiital kilifa gi mooy Seydina Aliyu ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool doole ko wér doole ko afiya ak mbooloo du ko samuta ak mbooleem taal bi dina ci ci kan yu am solo yi yaakaar naa ne Tamba ngi wax ne nee nañ yokkal kër ci kan waaye ni ngeen bëggee seen noonu lañ ko bëggee ngeen yëg ne loola ñuy man bi waaye bu neex bi nag lañ wax bu taw bi nag lañ wax léegi nag tax yéen ñu xaw leen yedd tuuti ngir yéex a tàmbali ci kan bu ngeen seetloo cant yu bëri bu ñu demee rek bala ngeen ci kat da ngeen dem ba kajet a jox te ci kat mooy dundal bis loolu dañ koy bàyyi xel kat ba jant fekk kenn du nelaw ko defee kon loolu ñu bokk ñu bàyyi xel ñu ngi sant bu baax nag ci kàddu yi nga xam ne jëm na fi yi mu mel ni jubluwaay benn la ci leeral ak ci wane ñu ko defal ñépp la waaye ñu bàyyi xel bis bi bu baax te mbir mu mën a doon la ko fondement bu la réere rek mbir ma des ko ko xam ba tax fondement dafa baax lool ñu ñu ko xam di dellu cosaan daf lay leer na lu ci sa kanam ndax nit bu ko cosaanam réere rek tàmpul kon day baax ñu koy fàttaliwaat di ca delluwaat fànn yëpp na bi fi tey yàgg na lool rëy na lool màgg na lool waaye fu tuuti la déparé ci ñun tuuti la déparé wante yàlla bàkkeel na seen kan bàkkeel seen liggéey ndax seen daal yàlla bàkkeel alhamdulilah ma tam ci fi ma yëpp ndax la ndax moom la ko yàlla jagleel moo ko moom kon moo ko cee ndokkee di ko ñaanal baax di ko wan ne ko liggéeyam rafet na ci biir ak ci biir li mu doon mat na ko ndax xam na xàmmee na ba mbir ma tàmbalee ba fi mu yàgg xam na ko ci biir xam na ko ci biir kon moom xalifa la boo xam ne xilaafam bi mat na sëpp fees na palaasam te may faral di wax ne xalifa mooy ki la wuutu nit ki nag mën na wutu waa ji ba noppi la ko waa ji bàyyoon mu yàq ko ngir ñàkk a mat lool ba nul muy am nit ki mën na wut nit ki ba noppi li fi bàyyi mu tàmm ko ba dara du yàqu moo gën a bari waaye nit ki mën na wut waa ji sàmm li fi bàyyi liggéey lu tool noonu ne doon li ko moom nag ci ñooñu la di fi bàyyi bàyyi mën na caa teg loxo ba dara du yàqu waaye mën na caa doon li xam ne lu toll noonu ba lu ko parce que lu tax mooy jumtukaay bu way juróom yoroon di ko àll bi moom la teg loxo taal du jeex kon day bay tool yi ba nëpp ko ci xoore doo daal ci tool yi xam-xamu koy may ak baat te yàlla jox na ko te loolu leer na ay ndaw laa àndal yoo xam ne la ca ñoom moo ko def ci ñoom damay wax ne sa taalee bee sa taal bee bokk ñu bañ ne seen taal yi bàyyi bi ñuy def ba amuñu taal yi taal yi soo ko amee la sa bàyyi doon def te taal doo ko def seen taal mooy yàlla kon ànd ak ñoo xam bi ñu jox mu tawaay gis nañ loolu nag mooy ak mat wala tuqatit fadla rabbin ka bi fi taqarrun faqad fataj xala it rubbama uri buxtaan waqara yu bari dañu jël rek jëndal ko kenn rek ne ci moom rek lay yem di ku bëgg sax ñu ne day sos wala day weddi wala gëm moo dal sa mu taal dañu jël ngëneel jagleel ko Sëriñ Tuubaa ni ci moom képp la yem du jàll lam doon def moo ko man lam xamoon moo ko xam lam ne kon moom rek a ca du jàll kenn du ko mën a kenn dootu ko defe te mu ñëw teg tànk foofu Sëriñ Tuubaa ci woon yeesalaat yoon wa yóbbu jaam ci yàlla ba mu yëg ko ni ko Sëriñ defee demal baax nga mu dem baax na ko sëñ Tuubaa daan defee ñu ne day sos yoonu boppam wala gëmul sëñ Tuubaa wala daa ber ber lu tax mooy yeesal gaa tax sëñ Tuubaa déggoon na ko ëllëg it kenn dana ko dégg dañu yëg ne mbirum yàlla yàlla ko yoral boppam ku mu ko teg sa moom moo ko teg sa moom la neex duñ ko siif duñ ko forcé kon na xel li damay wax ne nañu sant yàlla ci yàllam waxin la nañu sant yàlla ci yàllam qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ko bàyyi yàlla dafa dagaate lépp lu xam ne lu koy jege la war ko gàllankoor mu dagaate ko ci boppam de ci càppa julli na doom jegewu ko ndey jegewu ko bàyyi jegewu ko kenn jegewu moom rek walla mu njëriñ walla mu njëriñ ku fa am kon lépp lu muy def ci coobareem la koy defee duñ ko naan defal lii wala defee ko nii wala fii lañ ko bëgg déedéet da nga koy déglu rek te la nga am jàmm mbaa nga def gannaaw rek ma tax dëgg-dëgg war na yeewu nag te mu tax comme jàppul bàyyi da ci yeewu la doomu si yow abadan boo dund àllaat lu ñu tax a mooy yàlla fu ñu jëm ci yàlla lu ñu waxee mooy yàlla kon bu ñu fàtte yàlla waaw bu ñu fàttee yàlla su dee xel ngi dem ci yàlla ñu koy yëg di ko gis ci lépp xel day dal xol day teel waaye bu ñu ko fàttee rek tiitaange am bu ñu ko fàttee rek njàqare am bu ñu ko fàttee rek ko fàttee rek xam nga xam ne dañuy gëlëm dootuñu xam fu ñu jëm loolu la jàng bañ ay waxam mu ngi fi des ba léegi. yi ngeen mën a dégg ñam doon waxati ñu ko def ba léegi ñu mën leen nettali te ba leen njàpp nag nettali yee bañ ko njàpp ndax njàpp baaxul ndox la soo piir nga sotti ci ndox ba mu pour bëgg lu bëri na naam waaye amatul piir yow kon soxlawul njàpp ndax ñu jox lu doy jox ñu lu leer jarul ñu koy fenal jarul ñu koy suufal jaru ko du ko jàpp fekk ñu ngi wax lim ñu waxoon dem ca yoon ngay yokk parce que pour a bëgg a doon Cheikh Moussa dañu yéeg nit ñu am seen xel liggéey seen xel xam ne Cheikh Moussa moo yor bëgg jàmm fekk ko loolu dañ ko bàyyi xel. waaw waxoon woonu ma leen sama jëmm waxoon na ne tontu moom ko rajo kon bu ñu fàttu bu ñu gëlëm gis nga Cheikh Mouta danee nit ko xam ne dafa naqadi xam lool waxam daf koy woyofal lool te wax ji diis lool soo sàgganee woyofal wax wax parce que lu tax naqadee xam nga lu tax mooy bëgg jëriñ jàmm gis nga nit soo leen bëggee jëriñ danga leen wan yàlla dellu leen ci yàlla waaye lu dul loola rek nga gëlëmal leen lu dul loola bu ñu wanoon boppam wan ñu ay karaamaatam dañuy des ci jëmmam ja rek di ci jëmmam ja rek te duñ dem fenn waaye du moom de du kooku de damay wax ne ku dul moom yaa ngi làqu say taalibe ci ak dajj boo xam ne bëggoon ñu xam ko ci wilaaya benn benn ci karaama ne fi nga nekkoon kenn ko jege sax ngir la am jaam ji rek daal am naa dafa daal nekk ci biti ne mhm. fànn ñëpp ne leen ngi nii mhm. amul lu may nëbb mhm. xool leen ma ci biir activité kum xam ne xamul nan nga fanaanoo ba xam looy bi li dina jommal waaye amul jommal hmm. jaru ko jinne moo la war a jommal kon nit buy jommi yàlla ko war a jommal te ku jommi ci yàlla dootaa jommi kon nañu yeewaat baax mu doon nit ku xam ne waxam ak jëfam lépp xamul li ñuy laam-laam ne xel mu mu ne dëggam hmm. boobu mutaawaat mutaawaat ci waxin ak bëgg a jëriñ na lool ma xam war nga xam jombul la ni ma mel war koo mel jombul la loolu mooy nawloo nit ki moo tax man taalibe nawle la waaye maa war a mel nii maa war a ci man de waxut ñu ko wanut ñu ko hmm. dama xëy juddu ngeen xëy juddu ah am de hmm. lu ma leen ñoral laaj leen ma yàlla ma xamal leen lu ñu def bokk jàmm ko hmm. waaw lu gën a wér lii dara gënu ko waaye su ma juddoo doo fa juddoo ma mel doo ko mel maa war a mel ni maa war a naaw ba nga joomi sëriñ bi nag ba ku jéem mel ni sëriñ bi sax nga ne déet moom kenn la d'accord kenn la d'accord waaye kenn nag boobu ca laa yóbbaale gaaña ba ñoom ñu doon kenn dafay nekk ak ca lañ boo xam ne coow képp leen man jàll ci kenn te kenn du ko mel lu muy jëriñ mbaax bu jàll ci kenn may bu dul jàll ci kenn ci yow rek la xam kenn dootu ko lu muy jëriñati solo tam de daf naan yàlla mooy joxe waaye may séddale te lu mu la sédd na ñépp te mu tax ne ku ma tàllal te ndax ma def ja tàllam kee di doon boo xam ne doo dem mukk ba gis lu ko gën a rëy ba ko gën a mag abadan kon nag jëmm jooju leen tantu ko gërëm ko dafay jaar te damay wax ne lii ñuy waxee ku ko mën a wax ci ñun ak koo ko mën a waxee ku la xool xam ne li nga wax jógeewul ci yow mm-hmm. maa la li ñu waxee nii ku ko mën a wax ci ñun laa wax ak koo ko mën a waxee buñ la xoolee xam ne lii nga wax jógeewul ci yow am na fu jógee mm-hmm. du du mbirum gune yëfi mag la du mbirum gune yëfi mag la kenn la ko yàlla jox du ko jox ñaar ku ko jox moo la ko jox mbaa doo ko am nañ ñëw baax daanu dina ko liggéey te génnul néegam na daanu dina ko liggéey te génnul néegam ba àgg ci yàlla man cee yóbbu jàpp te génnul néeg ku ko man yàlla defal am ba léegi waxuñu lu xew ba léegi waxuñu lu xew ba léegi li xew waxuñu ko que dañ ko wax sax est dañ ko wax sax ndax mënuñ ko wax ndax wax ko day am leneen lu muy niru ñàkk teg yi moo tax dañ koy nëpp nëpp pare ndax bëgg ñu ñàkkee teg yi kat waaye itam daal kenn la ci góor yàlla yi da ngeen mën a yàlla def naa baat bi ni baat bi mooy fi gaal yi jaar ñu tàkkale yoon beneen bur gaal bu ñu ko defee gaay fu waa ji jaar la ñuy wax kii fu mu jaar ba ñëw yoon waa nii ñëpp jaar ci yoon bi hmm. ñu baat la ñëw fekk gaay fii ba dañ naan kii fu jaar neex na borom pee moo neex yàlla su hmm. ko neexee mu jaar bunt bi hmm. kon ubbil na ko bunt bu ma ubbil kenn defal na ko ca buntu boobu lu mos a defal kenn na leer ci jamono bu ne place bi ñu toog jëm yi ci place bi doo leen fekk ci àdduna jëm yi toog ci place mu bëri bëri nit jëm yu mel nii doo ko fekk déedéet am de koo fëgg dana fekk ci yàlla mbooloo bu toll nii koo fëgg dana fekk ci yàlla ju wér ban mbooloo ngeen ko wax leen rek fu mu am ah ñun de fi lañ ko gis ku ko gis feneen wax du ko. gisuñ ko kon loolu jafe te moom ne ñëpp dugub na ñu koy yëg ak ñu ko yëgul ñu ko xam ak ñu ko ñëpp moom la ñu waaye boo demee benn benn ngay fekk ñi nga xam ne sax xaw nañu jege fay ba kenn ko ca xam ba ñaar te lañ koy xamee te xam daal doon wax ne ci wàccu rabbaani rek la taxaw sax wàccu rabbaani ya wàccu rabbaani mooy yàlla jëmm jàng nee rek jëmm jàng nee taxul nga xam waaja waaye jëmm jàng nii rek xamul na taxul nga xam waaja de waaye dafa ay jikko am ay tasarufaat ay ay melokaan yu bari kon nag ji jëmm jël te xamul melokaan bi ya xamul tasarufaatam bi kon waa ji mën na laa bu soppee ko rek réer la te moom dafa bëri melo la mën a mel nu ne mën a waxee nu ne mën a defee nu ne kon boo xamee jëmm jaar yi ni cap cap cap cap kon xam nga ko waa yow damay wàcc xabaar yi kon lu leen mel mooy jaxasoo waaj jaxasoo waaj ba di waaj loolu yëpp sax ku la laal laal ku ne gis lu ndax jaxasoo waaj mooy tax boo waxee ñu ne waaj la boo jëfee ñu ne waaj la buñ la gisee ne waaj la kooku mooy jaxasoo waaj mm-hmm. waaye fekk ñu lay def rek du waaye boo jaxasoo moom soo waxee ñu ne moom la boo jëfee ñu ñu ne moom la ba nga di moom àggee danga ca àgg bu fëgg dënn man la man la du keneen hmm? gaa moom lay waxoon man la fooy làmb yàlla du ko fekk foo ko làmb doo ko ne man mii la waaye ana man kon duñ ku ñuy joxoñ boo joxoñee doon laal dara dëbbal baar ci bopp de waaye su boobaa waxoo moo tax ca Musaa ne waxul bay wax pay ba mooy mooy lan mooy ndomba tànk yi nga takkal mooy grade bi mooy mooy grade bi loolu nga xam ne man la maa yilif Sénégal maa ko moom maay dogal maay def maay dindi grade bu ñu la takkal moo la ko may borom pays bi la ko takkal te moo la jox ndigal kon am nga ci ndigal donc loolu ko des nag ñu xam moom tax mu ci mbaaxam ci laa biiram ci bëgg xam-xamam ci bëgg jëriñ jaami yàlla yi mu doon ci koo xam ne am jamono moo tax ñëpp dimbaloon ñëpp gisoon kenn ci lenn dudul yàlla dara luñ ci moom nag dara luñ ci moom xanaa yàlla moo tax ku ñëw ci moom rek gis sa bopp ci dafa baax lool ci ku ñëw ci yow gis boppam ci yow dafa baax ci kilifa lool waaye ñëw ci yow xeex boppam lool ngir lan ngir ñàkk daraja ngir lan ngir ñàkk waxta ngir ñàkk ngir kooku nit yàlla déedéet nit yàlla ku ñëw ci boppam gis sa bopp ma tax ci ku ñëwoon ci rek na man la sëñ bi gën a noonu la meloon gan ak dëkk ak yow te noonu la mel amuloon parti boobu foofu yàlla la bëggoon yàlla bi si jaam yàlla bokk ku ñëw mu teral la ci lam am waaye teral ci xam-xamam noonu la mel moo taxoon ku toog moom doo bëgg a jox ak nit taal yi boo xam ne ñëw toog waxtaan waxtaan ba tàggoo ba dem delluwaat mu sax fanaan ngir lan doo bëgg a dem ngir lan jàmm ji yërmande ji xam-xam bay tuur ci moom waaye li ngay yëg sa bopp ci bànneex sa xol loo jàq-jàq boo tawee keppaaru jàkkal nga ñàkk waaw loo jàq-jàq boo tawee keppaaru cabutaan bala faa jógee ci jàq day jàq du tey dara dul bànne sa xol xanaa dafa ñu yëg xol lu tax mooy jàmm jàq yàlla dafa nekk waxoy nit yàlla xat bakka kab la xat bakka fat la kon duru wala wala fu jàpp ca sëñ Tuubaa loolu sama gàllankoor moo tax nag kon war nañoo sant yàlla waaye war nañoo yow baax dimbale nañu jëriñ nañu yéex nañu soo defee nag ah ñu góorgóorlu ci jaay tegi lu am solo la. xàmmee ko biir xam fii suñu xibla ci zaahir ak ci baatin ñu bàyyi ko xel ndax nit la mu wax ne moom la gëm moom la bëgg moom lay dund war nañ ko jaaxal te soo saa bi fi nag te du fi jox kon daaru la waaye taxutaan taxutaan tey ma ne te am wax naa ko ca daaru ne dugg ci xabru bi tey waaye ka toog bee la dugg ci xabru bi moom la de waaye moo toog ci nen ba lay tey fee lay waxee jàmm ñi fee lay jëriñ jàmm fee lay rëbboo jàmm fee la fay dem ñaanal ko ñaan soxla rek waaye fii la lay boo xamee fii te ka toog seen benn soo ko xamee ne man ci xamul laa jëm wala ca la nga dox dem benn dëgg sama baax réeré ko teer la tool bu ñu gën li fi nekkoon rek a fi ne dana fi gën di nekk ba faw te fi jógee daal boobu yàlla xam ko def kon loolu ñu bàyyi xel taal yi nag yow nañ tànt yow nañ gërëm te loolu sax wax na ko ndax dafa mel ni desaluñ saxutaa dara ndax jox na ko tey lépp xanaa luñ amul kon yéen a yàlla ko amal waaye ñu ko teet waxee koo gis xolam bokk na tam tamit day fekk yéene na ko mën mënut a def su ko defee nag kon bu kenn xeeb sa de bu kenn xeeb sa kenn nga te muy ci yow defal bu leneen bi leen te loolu mooy am solo lu mat a bàyyi xam ngeen ko parce que jaay nekkul ay borom bi dafa nekk lu ñu gis rek ñu gën a gis bu dul xel dem seen xel dem na kon jarul ko lim waaye ñu xam daal Soxna Talla ku neex a àndal la ku neex a àndal taay ku neex a àndal ci baat lenn rek ku ne mooy laa ilaha illallah ak lim mu daan dégg nga xam ne xolam tedd na nga ne diw waxtaan bu waxtaan tey ci yàlla wala na mu wax ak nañ ko def tey ci yàlla bu toogoon da da tëddoon da ngay ci ndox benn. bëggoon baat bi jàll bëggoon baat bi jàll trop moo tax wax Ibrahima Gaye la ko jaale leen toog te dis mi ustaas loolu borom xam-xam la ku ca mu daa bëggoon jaale leen toog te dis mi jaale leen toog te Ibrahima Gaye ko tamati jàpp na mu ah, mu ne ko jàpp na mu ne ko Dakar la jógee oto ba ma dugg dugg naa fa koo xam ne mu ngay jaar tamit tamit oto hmm. te wutu yàlla la daje. Hmm. ma ne kon marché na waaye wax na dëgg. jàpp na mos. naa de ñëpp ku dul jàng naa marché moo xam ne ñëpp duñ ku mucc rek koy jàng ku nar a waaye ku natt mucc doo ko xam ne sax dañ ko jàng waaye jàng mucc daal hmm. mooy marché laa ilaaha illallaah kon nag dëgg-dëgg sama taam moo dëgg moo def dëgg tey ci moo doomal jamono it na moom de mel na lan war a mel moom wax lan war a wax def lan war a def ñun nag ñoo ci ci ngir ko ñun ba buñ ko xeymee ci ñun ba am solo lool taalibe mooy ceeru sëriñ bi bu ñu ko xeebee ak tam sëriñ bi mm-hmm. te damay wax ne ku ko xeeb rek ci taalibe bu ko xeeb waaye du jikkoom du meloom du jëfam ku dajeeg moom naw ci lépp benn doom dafa wax ne waxtu yi mi ne ko daal yow da may jaaxal ndax yow yaa fi gën a ñaaw sa yére yi ngay sol moo fi gën a te wala waaye sol ndax mbaam ngay takk sa mbaam te yow mbooloo moo dem boo toogoon ci pegg mbooloo mu kilifa jóg fettal bu mbooloo mu jóg fettal foo day mujj. Ah. loolu de jaaxal ma mun na ko dara la. waaw ah, noonu la mel noonu. dara la de. suy dem traite war lay war kocc kocc. son bu mu rëy te ngal rëy ci ba bañ a àggee. saa nga ñaar jóg wala asalaamaaleykum li yaatu ñu lan ba tam toog ca pegg mbooloo ñuy dem benn par benn ko nuyu benn par benn ko nuyu ba mu di jotaay ku leen ba nga ko yàlla defal ko bañ bañ rek bokkuñ sa dama war naa waaye buy tàmbali waxtaan rek nag dañu sa am ñu fa xam dem boobu ñoo dégg la ma wax moom waaye jëmm ji moom boo gisee faaw nga topp jëm bu la neexee dina naqare parce que yàlla nga cee gis xëy ba nga gis weneen nga cee gis loolu mooy nit yàlla kàccoor sax bu gisee war naa ko waaye su ma yàqam illaa kal ahad yàqam ko min xaw fi kooku leen ahad te tuwaa waxtu war ragee fa nga a bindee teg la la war a teg bu leen neex bu leen ko def daa tegoon yàlla fa war a teg mu di suñu waxtaan ne ku mën a xaar li ñuy wax na ko ku ko mën a yéene nañ la kon métti woon ne ci ci wax ñëpp toog foofu su bàyyi la yow kenn nga def day ñu gàcce de waaye yëgu ko moom parce que ci liggéey yàlla nekk waaye fu mujj nag ñu koy wóor bëgg mu wax mu téye làmb yi hmm? ku ñëw rek mu wax daan na yow te mu def jamono waaye dégg kàddu da ne ngeen dégg moo xam yow ci yàlla benn kàddu boo mën a jëm ci yàlla. kon nag ku doon wax ñu lay daw mu ñu lay wër ci bëgg a dégg sa kàddu loolu mooy liggéey yàlla kon nag nañ ko di bàyyi xel bu fàtte bu baax te dalal xel bu baax te góorgóorlu baax te dimbali kuy bu baax ndax diine diine rek ñun mën nañoo mot suñu melokaan ñun. waaye nañu mel buñ ci tudd Cheikh Moussa nañ ci tudd suñu bopp jëkk xutaa bi tamit ñun ñoo mel nii waaw moom ñu mel ko na mel diina mosu ko jëtu mooy Cheikh Touba mooy Cheikh Moussa bi lam dëgg gëm yëkkati woon la bañ ku ko fenal ci dëgg boobu leen waxal lam la wax de bu la neex nga sara nii laa ko déggee teraanga su noo déggee ah waaye yàq bi lañ bañ koo topp waaye déggin bi nag mën na wute mooy topp yàqu alquran yàq la tooñ la it topp yàqu àddina yàq la tooñ la it waaye nag déggin ma nag comme neex nga am noo déggee loolu tooñ waaye topp yàq bi nag la ñuy bañ kon ñu bàyyi xel baax kon ñu ngi tànn di gërëm ñëpp. di wax salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam. seen YouTube bu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque